ñoo ngi leen nuyu bu baax di leen ziare ñu jëm ci bés bu am solo la 7 août incha allahu rabbi stadium Iba Mar Diop ak Fallou Ndiaye borom Ndiaye production grand combat bu war a dox ci diggante Ada Fass doomu Fass Medina ak Dakar ak ki nga xamante ne moom mooy Tafa Mbër mbëru paaye xale yi ñoom ñaar nag yaakaar naa ne combat la moo xam amateur yi ñoo koy laaj ñaari mbër yi yàgg nañoo bëggante wala kenn ci ñoom ñaar am na koo xamante ne yàgg naa topp moroomam bëri ak moom xëy na moo xam lan la gis ak lu mën a xew le sept lépp dina leer incha allahu rabbi stadium Iba Mar Diop seetaan ngeen Ada Fass moo tax tey seet ki nga xamante ne moom mooy Tapha Mbeur fas yéene waxtaan ak moom ci combat bi tolluwaay bi fan la toll ñu fekk ko fii nag olympique club fekk fi coach gii def naa un an yaakaar naa mu koy waajal ci combat bi ma ñëw fi un an et demi maanaam def ngeen presque ñaata mois vingt mois wala dix-huit mois bii nag léegi nag Barça mooy sama dama lay nuyu bàyyi la nga nuyu mbokk internet yëpp ñu waxtaan ak yow ndax it namm nañ la te xale yow lañ bëgg Ciss bëgg maa ngi ziar bu baax lamin di ziar ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy parce que wër na àddina nuyu waa parcelle 1 ba 26 waa Grand waa Grand Yoff Cambérène Nord ñëpp ñi nga xam ne sekk nañ Cambérène ak képp koo xam ne yaa ngi gis Tapha Mbeur rek Tapha Mbeur di sa mbër maa ngi lay ziar bu baax di la nuyu di nuyu ki nga xamante ni kenn la ci man yaakaar naa ni mooy sama mooy sama famille mooy sama deuxième maison muy sama coach gii su ma newul sama kër maay fii maay ci moom presque un an et mu tëj lël di la entraîner entraînement yi métti xam nga kooku du coach ci man papa la la lépp la ci man parce que coach bi nga xamante ni soo wàccee yoon da lay teg la ci yoon wax ak yow wax la dëgg xoolul lu la neex entraînement sax boo amee jour boo ñëwul yéen ñaar maanaam da nga yaakaar sax da ngeen di reyante kon tey kooku place papa la lay taxawoo amuñu fayam di ko ñaanal gudd fan ak wér ndax tey ñi mu defar bari na maa ci gën a tuuti mais man dama amul fayam waaw dama koy ñaanal gudd fan ak wér ak Tafa Faye mi nga xamante ni pendant un an et moom it du sax loolu koo fawandool màggandool yaakaar naa ni weesu na loolu mais depuis Covid coach su tëj ma ci benn école ak ay pneu ay ay matériel Tafa Faye toog. amul jour boo xamante ni bu ñu yeewoo rek du ñëw toog course jël loo ko indi lii mu indi teg entraîné ba bëccëg ba trois heures chaque jour bañ ibbiwaat saal yi mu dugalaat ñu si biir saal bi maanaam Tapha Faye dama koy ñaanal gudd fan ak wér yàlla bàyyi ma ak moom seytaane ba ñu dugg suñu diggante lépp lu ma am rek yàlla naa ko bokk ak moom lu ma mënta bokk ak moom yàlla ma ko suñu borom jox parce que mën naa ne kilo pouse ba boo gisul kenn soo gisee kenn it na nga bàyyi xel ni kooku la woon dama koy ñaanal jàmb di ñaanal sama yaay sonn na trop sama papa di ko ñaanal ñaanal samay rak samay mag ñëpp ñi nga xamante ni bëgg nañ Tapha Mbeur rek maa leen nuyu di leen ziar sama staff nag aw ma seen fay ku si mel ni Ousmane Thiam moo indi teg ma si loxo coach gi ne coach gi doole lañ bëgg si moom soxlawuñ si moom dara na entraîné récupéré di ko ñaanal staff bi yëpp ku si mel ni Papis Ñaama Papis Diatta Rick Ousmane Diagne xam nga Jibi Gomis Cheikh Gomis bàyyi ma kenn waa intervent yëpp parce que dañoo sacrifié wu pour Tapha Mbeur nekk champion di ñaanal ñëpp daal yàlla defal leen jàmm. macha allah loolu am na solo yaa ko wax sànq nga ni ñuy jaar ci loxo gii bari ba dégg daale mën nañ cee tudd ku mel ni Modou ak Balla Gaye numéro de fi mu jaar ak ñoom ba ñu réussir seen mission loolu moo tax xam-xamu gii doy la ba nga ñëw ci moom wala. waaw parce que man tey affaire yi am na benn moment mu dëgër këcc sama koñ ñoom Ousmane Thiam ñëpp taaj wax ma ne leen. man coach gi laa bëgg mu entraîné ma coach gi balaa maa ñëw si moom lu nekk daj naa ko parce que xam nga nanguwul woon ma ne ko coach soo ma entraîné wul man ma bàyyi làmb moom ma ko gënoon. grand frère bu ma xam ne war ngaa mën a wax ak moom rek woo naa la Ousmane Thiam ma ne ko waxtaanal ak gii man gii laa bëgg mu entraîné ma ba si suñu champion yi nekk parcelle ñoom Dolf Dolf woo gii ba si vocal yi ma ko envoyé woon sax daf ko ko transféré ne ko jàppaleel booy bi dañu bëgg mu entraîné. xam nga ko tamit nekk koo xam ne ne borom xol bu rafet la am na yéene ci ndaw bu bëgg dara mu jël ma def ci bi may ñëw fii nii 30 kilos attanu ma ko mais tey champion bu dugg ci salle bi mënoo def lu ma mënul def donc kon damay sant yàlla donc man du ma ko wax sax coach gii le meilleur rek laa koy woowee parce que ku dugg ci ay loxoom boo toogee commencement bi nee na ma Tapha entraîné ak man da koy bëgg mais jom moo koy yeggali mais dëgg la parce que am na fooy toll boo amul courage doo demati. parce que metti na charge yi diis na liggéey bi yàgg na mais moom da lay moo tax mu nekk le maire parce que moralement da ngay pare dama koy ñaanal rek lépp li mu bëgg ci xolam moo xam yàlla na ko suñ borom defal ak lépp li mu bëgg ci ñun muy réussite yàlla na ko yàlla defal incha allah. ok loolu am na solo loolu yëpp nag li ko waral mooy da nga am combat capital muy sa diggante ak ak Ada laaj naa ko keroog sax balaa ma ñëw ci ci combat bi xeex bi bëre non booy boobu xajuma ci moom lépp ci li góor di def maa ko dàq déggoo ba xanaa wax naa ko ko mais dégg ko lépp lu góor di foowee rek maa ko dàq. moom nee na ni la mënee ci làmb ji noonu la mënee <laughs> man dama koy koy ñaanal jàmm rek moom dafa neex toog sa koñ di mën ak a yomb mais bis bu arbitre arrêté waaw dugg studio te di naan ay malaar faas <laughs> loolu dafa neex mais gis nga euh, xam nga fan la ñuy xàmmee garmi yi. bu ñëpp puusee mu des lu dul yéen ñaar na bàyyi loolu xelam balaa bis ba bu ñëpp poussé bàyyi loolu bàyyi ñu ñun ñaar ci biir géew bi toog sa koñ booy boobu lii la booy boobu comédien la booy boobu nangam la li may grillé di bégal nit ñi du pour moom am na ñoo xam dañu maa bëgg de naturel noonu laa mel ñooñu laay bégal di kaf ak ñoom mais bu ma duggee mbër ci biir géew foofu kaf amatu fa foo re amatu fa ku mën sa morom duma la te ñun dañu am parcours am passage am jaar-jaar ñoo la gën a undu gën la kileen lu garaaw laa ko wax nag mais loolu du wax jëf la nee naa ko làmb ji du làmb wax mais yaakaar naa dégguma ba ba tey dégguma ma wax mu ngi wax lu ne ñu naan ko dafa mbër da laa ragal ak i naa nga ma ki sàngal tamit jaaxal na ma combat bi mu taxaw ba léegi da nga toog ci sa ruq rek pression ngay demee wala non non non dama nekk ci ay loxo te daam lu ñu ma defloo ne ma sant ñu loo lu dul demal nga entraîné nga récupéré ba pare bu wax jotee di nga wax ma toog nekk suma ruq moom mu génn di kebetu yaakaar na ne loolooy làmb ji làmb ji du foofu làmb ji xam nga fan la booy maag yow buñ desee si biir géew bi fan la ñuy xàmmee garmi yi incha allah. Hmm. yéen ñaar dafa mel règlement de compte non gëwuma règlement de sax parce que làmb ji toll foofu làmb ji am tension làmb xale la maanaam ba pare di maanaam euh, nu ma ko mën a sax ñun ñaar ay génération lañ loolu yàgg na ci làmb gis nañ ay morom yoo xam ne dañuy nekk si biir bi ba làmb ñoom ñooy génération wante après coow li bari si ñoom loolu kase la. mais moom na waaj ba ma toogee waxuma dama nekkoon ci liggéey. nee nag làmb lay def moom nee na làmb lay bi ci làmb maa ko gën a ne ci làmb fuuf moom ci wax la ne parce que boobu ba tey mu ngi wax tëjal sa gémmiñ gi booy bis ba doo wax man maay wax ba wax jotagulee yaa doon wax su wax jotee rek maay wax booy lu garaaw laa la wax hmm. yàlla baax na nañu yàlla may talak fekkee. foo teg ko ëpp doole danga ko gën a pare da nga koo dàq bëre wala lan moo lu góor di def maa ko dàq maa ko ëpp doole. maa ko dàq bëre. maa ko dàq xeex maa ko fit. Ah, dafa sori loolu de. loolu <laughs> loolu xam kañ lay leer buñ demee ci biir géew bi mais li ma ko wax bu yeboo mu indi ko si boppam mënul bëre moom li muy bëre ak a yomb ñuy jàng bëre parce loolu la ñuy fooyee. wet gi mbaa doo ñun en face bërëg bi lañ dëkk ci taatu. taxawaalu ci wet gi. déggul olof ñun ci wetu géej gi lañ dëkk. parcelle ci wetu géej gi. ñu da ngay jégg ko ñoom Papa Sow rek wàcc ci géej gi ñun tànku ne la ñuy demee géej. maanaam dama bëgg mu xam ne ñun mbër mu ne la ñuy bëreel te duñ ay màgg bëre dañoo fo ci géej gi ba màgg ba pare nekk ci loxoy kosu gii ak pambay rock énergie ñoom conke sil ñoom laat buñ ko gëmlawee ni combat bi dafa yomb yaa mën tafaa mbër mën ma sa koñ bañ dem ci géew bi booy fi ma mënee noonu neex na torop na ma toog koñam di ma mën daa fas yéene moom fu mu nekk fu mu nekk ci géew la ma fas yéene la parce booy bi waruma am lu ma koy wax parce su toogee koñam may toog sama koñ di wax amul sens mais dañ bëgg li mu wax moom bu arbitre sifflé mu dëggal ka te gëm naa ne bu ko dëggalee combat bi du taxaw ak moom maa ko ëpp doole déggoo ma de maa ko dàq bëre maa ko dàq xeex su xeexee ma duma ko su bëree ma daan ko. xanaa li nga li nga gisoon on du jaar fii moom instant mi ngi xeex de mu ngi jàng xeex bu métti. ñooñu ñëpp gën a féroce dàq ko bëre globalement maa ko gën a doon mbër làmb man la gën a yaakaar avenir u làmb laa. man mbëri man maay mbëru mbëri xaritu paa yi mère ak gone yi déggoo ma de. dégg naa la kay man ma bëgg. bu dul loolu rek dama fooyee làmb te xoolal samay départu làmb xoor départu làmbam man dama ñëw ci làmb bëri combat yi métti yu jànqee moom ay petit poussin la doon daan. moo daan ci atu waaye dégloo ma xanaa ñun ñëpp du ma minimiser mbër mais mi ngi doog a mbër ta mbër dafa mbër moom jàpp na ni yow yaa ngi wax yaa ko ëpp fit sax mais moom jàpp na ni ragal nga parce que daw ko tu face à face nga d'accord bu ñu la woowee face à face nga ñëw andi waaw moom dafa yàkkamtee jàkkaaroog Tapha Mbeur di baatal mais moom xam nga lu tax ñëw ma déggul daaj dafa oyof dafa sedd man mënuma baatal ak boo yooyu si ay signature sama rythme ah, sedd na ci wax ne waaye ci biir géew moom sedd ko kooku déggoo ma xanaa biir géew da koy safal de waaye ban la mës a safal xoolal combat bi passé digganteem ak kii yërë bërë bu rëy la fa ba waaw doon bëree. léegi nan la bi koy wax looy ree wax loolu. non réew ma parce que ma ree. yow su ma wax ak yow. boo ko joxaatoon bis mi léegi bis mi lekk ko olof laa la wax mais yooyu passé na. échange maag Tafa Mbeur. li mu bëri ak dama bëgg nga ñëwaat ci loolu technique dëgg en tout cas am na combat. te liggéey naa lu metti li ma bëgg mu xam mooy na waaj nga xam ni combat bii sama bakkan laa si teg kafuma ci réew ma ci te li ma ci bëgg mooy ndam soxlawu ma ci nul soxlawu ma ci defet damay ñëw pour jël si li ma moom cell nag wax la la fait dafa noppi dama bëgg mu jël loolu def ko leçon bu ma fontoo boobi dafa ma bugg yàpp te dinaa ko wan nan la ak naka la yàlla baax na. wax rek. non jaratu nee naa. tàng rek bareetul naa li si bi li des bëreetul. lu waaye doon jaay. xeeboo xeeboo xeeboo Ada Fass. li ma Ada Fass de damaa xam li ma liggéey. Ada Fass mbër la champion la mais damaa xam li ma liggéey te bu arbitre bi sifflé ma woon ko li ma liggéey. jàpp nga ni mën nga ko jaay doole mën nga ko néewal doole le set. mun naa ko def lépp mun lépp lu mbër di def mbër bu arbitre bi sifflé mën naa ko ko def moo tax suy wax dama naan il n'a rien compris waaw il n'a rien compris na waajal te bàyyi wax ci moom nee na Tapha Mbeur comédien la daa bëri wax mais boobu ba tey mooy wax moom bu toogee moom kese ak ngegenaa war na wax ne kii lafet mu noppi lan la olof nee na ceelu wax la. xam na dafa bëgg dafa bëgg nga kii rek xaw a ñeme tuuti parce que moom jàpp na ne moom da nga ko war a. Ousmane Thiam ak coach gi dañuy naan hey eh, entraîneel. bul wax bul wax dara am na mbër yoo xam ne ñëw nañ fii préparer seen combat ba dem bàyyiwaat ma fi maa ngi liggéey maa ngi fi di liggéey yow fekk nga fi ay mbër jël si leen fi fekk ma may joob lu métti bañ dem ba boobu ba tey maa ngi fi un an et demi di liggéey ak coach gi kooku mënul ñàkk doole. na def ndànk waa. gars yi nag seen combat 16h war nañu mën a tëj stade bi parce que yéen ñaar ay borom mbooloo ngeen waa Parcelles nag bu ñu yéexee ñëw est-ce que waa Fass. waaw ñoom parce que moom ma waxee rek danaa man Fass laa dëkk damaa war a nekk mbër maanaam Brésil laa dëkk damaa war a nekk jour Fass dafa war a nekk. roi des arènes ma de fu mu ne. parcelle la nekk <laughs> parcelle ñaata champion ñoo fa nekk. ñaata par ñaata champion ñoo daan jógee Fass di ñëw parcelle di contact si di entraîné foofu ñun ñu toog seen yére yi di leen teel moom na def ndànk fas yàlla def na am na ay champion ay borom tur a ngi fa mais loolu du wax parce que wallub teen la ku dikk ci pind ba ngay yem maak moom ñooy des ci géew bi te lu lu waay mënee sa morom bu ma jekkoo na ma kil ndax bu ma ko jekkoo du ma ko baal yaaram lu wér laa la wax. soo ko jekkoo da nga koy gaañ. non dama la li muy ñoddi damaa bëgg mu xam ne li muy xeeñ di woowu waaw lu wér laa la wax moo tax ko combat bi waxuma parce que. lan nga xam ci Ada Fass lu ñu xamul ci moom. non man xaw ma ci moom dara lu dul moom mooy Ada mais man la Tapha Mbeur doomu parcelle parcelle damaa yaakaar te ñun parcelle suñ drapeau kenn du ko fo kenn du ko tilimal. ñoo ko sàq côté mobilisation fan nga ci tool. waaw côté mobilisation ñu ngi koy bàyyi ak garaay ñoom Ousmane Thiam dañoo bëgg booy ñu jëndal leen billet yi quoi xam nga ñoom Lili ah ñoom Muyana Canada xam nga bàyyi ma kenn grand yi nga xam ne ñu ngi ci salle bi olympique ñaa ñoom yàgg nañ fi nekk di entraîner maa ngi sàkku si ñoom ñu jëndal ma tike yi parce que ñun ñooy fekk si dañoo bëgg stade bi kenn buñ ñu fa ëpp am ay bologu ticket booy fees dell si stade bi yëngal stade bi ma jàpp mbër bi duma ko daan ko ñu ñibbi parcelle mais képp ku si bëgg a jàpp parcelle parcelle ñor la maa ngi lay wooku waa nga ñëw jëndal booy ticket yi parce que tamit xam nga combat bi combat bu am solo la si suñu carrière fonk nañ ko trop kon képp ku ñu fonk fonkal lañu bis bii nga ñëw jàppale ñu si di woo samay mbokk Saalum Saalum yëpp. bi nga woote ku ñu fan fan nga maa ngi woo Saalum Saalum yëpp. waa Sokone maa ngi woo waa Sokone waa Passy waa Kër Madiabel waa Wack Ngouna waa na Salaam di woo sama sëriñ sëñ Abdou sëñ Abdou Aziz Touré ibnu Baye Xeeri Touré ak sëñ Fallou ture njabootam gi yëpp di leen wax ni xool sedd yaram sedd lañ bëgg di woo waa Poste Kër yi waa Kër Katim Jama waa Kër nga xamal ma la waa bo waa Segre képp kuy doomu Saalum Saalum maa ngi sàkku si yow. Saalum Saalum nga. pur sang ci yaay ak ci papa te damaa bëgg Saalum Saalum. am na Moustapha Gueye tam. ah ndi Moustapha tamit <laughs> ñun Saalum moo ñu ñor combat bi képp kuy deret Saalum di daw sa yaram yaa ngi jàpp ci combat. yaa am ni mais moom moom tamit moo ngi Baye Fall. waa déggoo ma xanaa ñun Saalum Saalum yi ñoo ñu. Baye bi ñor na ko de. Saalum Saalum yi ñoo ma yéem man dama bëgg kuréel si génn. saalum saalum yëpp képp ku deretu saalum di daw sa yaram saayiran wa baatinan maa ngi sàkku si yow ndimbal ak ñaan. écurie bu bees tamit nga nekk Rock Énergie écurie bu bees yow yaa fa bees sax yow yaa dem rejoindre waa Rock Énergie lan moo tax. damaa dañ delloo mbatt ci ndaali rek man parcelle laa dëkk te ku ne Rock Énergie ne mooy parcelle mais parcelle nag écurie yi parcelle écurie yi yaakaar naa tur la rek mais ñun ñëpp benn lañ te gis ngeen li fa nekk ñëpp ñu ngi ànd di liggéey Rock Énergie nag aw ma seen fay ku si mel ni coach Pambay moom it ku baax la di la waxtaan ak yow di la conseiller entraînement da ngay toog contact yi lu métti la may teg boo xoolee ñu gars yi dañ may mbëkk ba sama kanam gi day teppeeku di la samploo si biir ponkalier gars yi ñoom laat ñoom conke sil ak booy mbëru rek énergie yëpp bàyyi ma kenn ak grand frère yi nekk si kaw bi ñoom maîtrise ñoom dolf ñoom super jamono ñoom baay pël xam nga sàkkal champion képp ku mës a jaar rek énergie rek maa lay ziar di la nuyu di saaku si yow ñaan ndax ñoom ñoo xàll géew bi ba ñun ñu ñeme yoon bi. nañ jàpp ci combat bi tamit jënd jënd ci bee yi ñoom bébé Modou Lo. ñoom bébé Modou Lo nañ jàpp si tike yi xam nga euh, grand nu mu tëddee maîtrise euh, super jamono dolfu baypal jënd leen billets booy dugg si stade bi mooy yëngal may leen victoire bi parce que combat bii nii du ma la nëbbu ko waa seen combat la ñoom parce que xam nga chaque jour ñuy message si WhatsApp bi di la gém di la wax naa la booy entraîner parce que yow avenir nga booy nii ak naa parcelle am na yoo ma mere ndax lan gisatuñ ma dañ daan toog di jappise ku ne ma ñëw sa koñ léegi amatuma jot bi ndax coach gi daf may daj lu metti pambay contact yi du ma may dara gars yi mere ma booy bi gisatuñ ko booy bi nii xam nga mais li ma bëgg mooy ndam après dinañ comprendre lu taxoon booy bi raar li parce que dama comprendre que ne liggéey rek mooy maye ndam mun nga toog yi mais gars yi sa ndam lañ gën a bëgg ka toog ñoom bi leen wax ni gaan raar bi du dara lu nekk si job rek su ma indee ndam rek mu neex parce dama bëgg mu dugalaat roi des arènes muy Tapha Mbeur parce que man làmb bëréw ma ci pour bëre nii ah dama bëre pour doon champion roi des arènes instant bii nag dama xam ne liggéey moo koy maye ma toog suma ruq di job suma job mais teewul ku si nekk suma relation ak yow xam nga ko man xam naa ko dañ man ñaanal rek ma ma dugal parcelle li mu fa war a dugal. looy wax sa li ma lay wax booy mooy lenn liggéeyal te nga tëj sa làmmiñ bi mën nga nekk sa koñ nag mën ta faa mbër mais buñ duggee ci géew bi nga xam ne doo mbër maa la dàq bëre maa la xeex maa la bu fit booy boo xeexee ma duma la soo bëree ma daan la la sept incha allah ñun ñooy feetu dinaa la duma daan la invité la koñ ba feet